dafa tudd li ñu naan session extraordinaire maanaam euh, bu fekkee ne ci pencum ndaw réew mi député yi dañu ñëw daje dañu daje ci loo xam ne parfois président de la république mën na ne ah dama bëgg euh, ngeen euh, tenir li ñu naan session extraordinaire loolu moom am na ci droit am na droit ne dafa bëgg sur ay sujet sur ay projet de loi que ñu réunir si le plus rapidement possible donc ci projet de loi yooyu mu ñëw proposé ko bu ko proposé nag liy xew mooy kuréel yi yëngu dafa am li ñu naan plénière mooy li ñuy doon daje fii ci biir hémicycle bi président bi bu ubbee dafay ubbi maanaam tàmbali nañ liggéey bi après ñun ñu retiré wu conférence des présidents bi nga xam ne moom lañ nekk nii dafa war a réunir léegi bu ñu réuniree ñu déterminer lan mooy agenda bi su ñu déterminer agenda bi ñu xool yan mooy les commissions compétentes maanaam kuréel yi nga xam ne ñoo war a toog saytu loi yooyu euh, yegg si tegu ci table bi donc loolu la ñu war a def léegi nii. waaw xam nga Sénégal moom coow li <laughs> dafay bëri mais gars yi duñ comprendre bu baax euh, naka lay demee su fekkee ne dafa am un certain nombre de propositions euh, yoo xam ne dafay jóge ci président de République groupe yeeg ñu bëri dañu waxtaan société civile tamit dafay wax ñëpp di wax ñun nag suñu groupe muy groupe Benno Bokk Yaakaar ñunu dañu gis ne que ne par rapport ak. Euh, opportunité article bi gisuñu opportunité bi ñu euh, déposé article boobu ci table président donc bi ñu ko waxee loolu le président de la république moom il est à l'écoute aussi de son groupe parce que loolu ay discussion la ci discussion yooyu moom tamit mu juger opportun ne effectivement soxlawul euh, article boobu boo bokk ci donc Euh, naturellement euh, ministre de la justice dafa koy retirer ci li nga xam ne moom la ñu war a liggéey mais liggéey bi dafay continuer mais aspect boobu moom ñun si suñu biir groupe en tout cas groupe benn Bokk Yaakaar on on a pensé que c'était pas opportun ñu dugal ko ci.